yonent bi ndax kenn ku nek xam nga ni gam gi passé way na xasida bu reuy ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam isra wal mi'raj muy kazu rajab bi yonent bi demone jëli julli sa yu jotee dotul am jàmm lay wax ni nañ ko magal fi waxtaan ak julli ñi ci walu julli defal len sax salatu tasbih ci guddi googu kenn ku ne xam ne fukki fan ak juróom-ñett di kët mi ya saa yu jotee dana taxaw lu mu am ak lu mu amul yépp dana ko def ci guddi gi lu mu mën ak lu mu mënul ren ni mu def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam way ci xasida bu rëy noonu la def ci katmiya bi way seydi Cheikh Ahmad Tijani Chérif radiallahu taala anhu xasida bu rëy ci katmiye bi passé kenn ku nekk xam nañ tamit guddi badar muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru badar at mu jot tubaarakallaahu ñu ko màggal fii ànd ko ñoom imam Moussa Gueye mii ak Abdoul Aziz Fall ak kilifa yi ñu koy seqal yépp tubaarakallaahu dinañ ñëw ci seen tur ñoom ñépp loolu moo tax rekk guddi gi ñu màggal ko nii ñu koy màggale dajale jullit ñi tubaarakallaahu dajale boroom xam-xam yi pour ñu teew ànd ak moom ci guddi gu tedd gi tey nag damay wax ni Cerno fàggul nañu jataay bu rëy jataay bu am solo fàggul na ko tamit dëkk bi quartier bi fii tey koñ bii zaawiye bii tey mi ngi tiitaru di puukarewu lan lay tiitaroo di puukarewu mooy xoolal boroom xam-xam yi toog allahuma la aduru ñii ñëpp ñu fas yéene ànd ak ñoom bokk ñoom jataay benn jataay te yenent bi nee toog ak boroom xam-xam benn waxtu mën na la sori àdduna ak àllaaxira rawatina na nga toog ak ay boroom xam-xam toog ak koo xam ne am na cër boo xam ne min awliyaa illaahi kon loolu tuutiwul kon loolu cer na miñ ko fàggul yal yàlla yàggal ko fi te may ko wér mu yàgg koo fàggul ñu fas yéene itam ànd ak ñoom julli gee topp ci seen ginnaaw julli te am na ñoo xam ne ku ànd ak ñoom julli yàlla nangu sa julli te jëmm yu tedd yii toog ak jëmm yu tedd yii toog ci zawiye bi ñu ñëpp yaakaare nañ ko ci ñoom ndax sëriñ bi ci woye fam suy wax ñi yàlla may daraja nga xam ne soo bokkee ñoom ñam yàlla jéggal la suñuy lekk suy wax loolu danaan kenn ku nekk ci ñun naka yaakaare moroomam na loolu lay wax bu ñu bokkee ñam. mu ne ah yonent bi nee na woon man ak akala maal maxfuuri xufira danaan kenn ku nekk ci yéen ñun ñëpp ñu ko ah kon di ñun alhamdulilah ñun yow lañ ko yaakaare baan mu ni déedéet kenn ku nekk ci ñun na ko yaakaare moroomam yéen man yéen naa leen ko yaakaare kon kenn ku nekk ci zawiya bi ñun ñëpp ci góor ñi ak ci jigéen ñi kenn ku nekk mu ngi fas ci xolam ci li nu Ceerno jàngal man de am na jigéen sax boo xam ne gisuma ko mag ngi ca gannaaw ca biti ji déglu koo koy tax yàlla jéggal soxna si tamit daal ni man de am na ñu nekk ci biir zawiya bi ñooy tax yàlla jéggal yàlla dëgg ca ana inda zanni abdi bii in xayran fa xayran wa in nag moom duñ ko def in xayran rek fa xayran yiw rek la jort ci yàlla subhanahu wa taala tubaarakallaahu kon sëriñ bi ñu ngi lay sant ci loolu bu baax di la gërëm duma guddal kàddu yi ak ubbee bi ndax jataay bi bëgguñu mu guddee noonu ndax mag ñi tok ak borom xam-xam yi nga xam ni kenn ku nekk amna leneen lu lay xaar ci sa biir neek amna leneen lu lay xaar ci say lawraat amna ay naafile yu lay xaar kon su ko defee dañuy gàttal kàddu yi foofu rek présenté nag kilifa yi fi nekk yépp tubaarakallaahu oustaz Oumar Diagne ngi nii toog di kenn tubaarakallaahu ci xadara bi di kenn ci rajo Safina mi ngi nii toog incha allah daañ ko jox mu yëkkati ay kàddu dalal gan yi tamit ci Haalpulaar incha allah mi ngi nii toog su noppee danañ jox suñu wëllëre suñu soppe suñu xarit oustaz Massyla kan mi ngi nii toog tubaarakallaahu su noppee danañ jox suñu wëllëre suñu xam-xam tuba euh, suñu baay oustaz Abdoulaye Mbaye bu rajo Dunya borom tafsirul Quran bu neex bi nga xam ne moom buy firi alquran boo koy déglu da xam ni kii. li muy firi ma ngi ko jëlee ci dënnu mag ñi ñu nii toog tubaarakallaa du ko firi mu neex lool yenn saa yi mu firi dugal benn mag yenn saa yi mu firi dugal benn xissa tubaarakallaa firéem boo koy déglu tubaarakallaa da nga xam ne mag ñi ñoo ko nàmpal te Serigne Cheikh moo doon wax ni nit su nàmpee ci lam ci weenu yonent bi sallallahu alayhi wa lu mu wax leer lay nekk lu mu wax leer lay nekk suñ la nàmpalee ci weenu yonent bi loo wax rek mu nekk leer mu jëriñ nit ñi waaye su fekkee nàmpoo ci leeru yonent bi nag loo mënti jàng tamit coow rek ngay wax moom nag dafa nàmp ci weenu mag ñi ñu ngi après bu ñu ci jógee dañuy jox suñu mbokk suñu wëllëre di borom xam-xam di oustaz Gata Guiyu moom tamit mi ngi toog ci jataay bi tubaarakallaahu danañ ko jox kàddu su noppee danañ jox imaam maam góor topp di wëllëre di soppe di xarit di boroom xam-xam su noppee dinañ jox oustaz Mouhamadou Salih Ba di boroom xam-xam tubaarakallaaw juddoo ci ëttu xam-xam yaroo ci ëtt xam-xam ko ci xale mu baal ma ci waxin bi boo ko ci xale yi nga xam ni yëg na ni sëriñ bi daf ko sopp ndax xam-xam sëriñ bi daf ko bëgg mi ngi toog su noppee incha allah danañu jox. suñu wayjur suñu xarit suñu soppe Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ñang bu suñu wayjur maam Alxaaji Tidiane ñang bu Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu ma nga nele toog tubarakallah wayjuram kep ku min hadra malikiya kep ku min hadra serigne Babacar si xam nga wayjuram wayjuram mo wayon serigne Babacar ya laytani kuntu na'lan aw akunu sariran lil xalifati yamshi al qutb wal jaaw mi ngi nii toog su noppee itam daa jox suñu xarit suñu soppe soppe ñëpp di oustaz Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mi ngi nii toog di borom xam-xam mu baal na ci kàddu gi may wax moom imaam Moussa Gueye muy nit koo xam ni eh, ku am kàddu gu yaru la maanaam kàddum day dugg ci xol ndax yaram ak tegginam bu ñu noppee tamit ñu jox suñu wuy jur suñu mbokk imaam Moussa Gueye mu mu baax mii toog nga xam ni moom tubaarakallaahu e Thierno da koo bëgg lool Thierno Hamidou da ko bëgg lool tubarakallah mi ngi nii ñu koy nuyu di ziar su noppé imam babakar mbooj yegg ne ci jotaay bi mu neele tok mom tamit ko jox inshallah allah ñu ngi nuyu tamit kilifa yi fi nekk yépp di nuyu suñu wayjur Thierno Jibi ban tubarakallah di mak ci serigne bi tubarakallah mi ngi toog ci jataay bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di ko wàccee wàccuwaayam di nuyu Thierno Mouhamadou si moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di nuyu suñu wéyjur Mouhamadou Lamine Ba moom tamit mu ngi ci jataay bi ñu ngi koy nuyu ak délégation bi mu àndal yépp tubaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar waaye ci làmmiñu xadara safina ñu ngi gërëm ñépp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci xadara bi ak jullit ñi nekk ci biir néegu yàlla bi ak ci biti yëpp tubaarakallaahu gërëm suñu imaam ratib imaam Ibrahima la mee toog nga xam ni sëriñ bi moom la teg fii ci kanamu jàkka ji boole koog imaam Samba ak mag ñi topp ci seen ginnaaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di gërëm tamit njabootu sëriñ bi yëpp lépp lu sëriñ bi am ci njaboot dugal nañu seen loxo ci biir li ko tàmbalee ci kër gu mag tubaarakallaahu seeni teraanga yegg si na tubaarakallaahu suñu salimata ay teraangaam yegg si na ci bis bi tubaarakallaahu suñu yaayu soxna mariyaama ay teraangaam yegg si na tubaarakallaahu ak i bokkam ñoom ñëpp ñëw nañu ak i xaritam tubaarakallaahu ñoom ñëpp yegg si nañ ci bis bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla dafa leen tawfiix suñu yaayu soxna rislaan nekk fii ci kaw tubaarakallaahu moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ko wàcce wàccuwaayam njaboot gi yëpp tubaarakallaahu ceerno nuyu na leen muy njabootu deret di njabootu ruux sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm rawatina daayira yëpp lépp luy daayira safiina li tàmbali fii ci dakaar ba Dugaar tubaarakallaahu sëriñ bi mu ngi lay sant di la gërëm li tàmbalee Dugaar ba Jas sëriñ bi mi ngi lay sant di la gërëm li tàmbale Sénégal ba daayira yi nekk Mauritanie ndax tey ñun ñoom waa safina bu Mauritanie ñoom ñëpp seen xele ngi fii ñu ngi bokk ak ñun jataay bi safina bu France ñu ngi bokk ak ñun jataay bi safina yi ñu am yëpp ci bitim réew ñu ngi bokk ak ñun jataay bi bokk ak ñun bisu batar bi kon ñoom ñëpp tubaarakallaahu sëriñ bi ne mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla defal leen tawfiix defal ñu ko defal ko mbooloo mi julit ci barke sayidil wujud wa alimi shuhud sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñoom Zakaria tubaarakallahu ak Thierno Bachir ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax yéen fépp fu kàddu sëriñ bi war a àgg wala jataayu sëriñ bi yi muy def yéen a ko fay àggale ci làkku xaal pulaar mu rafet lool tubaarakallahu Ibrahima Ba nekkal sëriñ bi fële ca daara cubb mi ngi nii toog tubaarakallaahu ñëw nañu ñoom commandant jóge koo Dugar ñoom Aliou Diallo jóge koo Dugar Cheikh Ahmed Tijani Ndoye jóge koo Tëngéej tubaarakallaahu ñoom ñëpp ñëw nañu mën naa lim fu sëriñ bi am njaboot te ñëw mën naa ko lim waaye li ma doon wax laay bañ mu dal ma mooy ma guddal man loolu laay bañ mu dal ma te daanaka sax maa ngi bëgg maa ngi bëgg a guddal nuyu président Safina yëpp muy tonton Kalidou mi ngi nii tubaarakallaahu toog ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di nuyu tubaarakallaahu waa xadara bi yëpp commission d'organisation bu xadara bi te Amadou Ba jiite ko di jarbaatu sëriñ bi moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yal yàlla jàppale ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant su ko defee gërëm nañ ñëpp sant ñëpp su ko defee ñu bàyyi al oustaz Oumar Diagne mu ubbi jataay bi comme ni ko sëriñ bi sàkkoo ak alquranul karim su noppee rek ki ci tegu tegu ci waaye kenn ku nekk rek ñu jox la juróomi minute incha allah nga daal di koy barkeeloo bismillah أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب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 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين أحسن الله عاقبتنا وعاقبتكم وأطعنا ما يكفينا وما يكفيكم أدام الله انتفاعنا وانتفاعكم يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين سلام من وسلم يلنا صخ ci barke yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu Moussa Dieng di wëllëre sëriñ bi Moussa Dieng di wëllëre sëriñ bi ñu ngi koy nuyu bu baax moom tamit di ko ziyaar di ko wàcce wàccuwaayam colonel Moussa Diouf moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax di tubaarakallaahu wëllëre sëriñ bi Omar Ba nekk présidence di doomu sëriñ bi di talibé serigne bi di soppe serigne bi mom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax diko waccé waccu wayam abdul Aziz Bokum mom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax tubaarakallaahu diko waccé waccu wayam kon ñu bañé a kàddu gi rek jox Thierno Mouhamadou Mokhtar Tine tubaarakallaahu mom tamit mu jël juróomi minitam bismillah Thierno mohammed mukhtar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد taawuz wal قال تعالى في محكم تنزيله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا اللهم اجعلنا من المتقين الذين تتقبل منهم ولا تجعلنا من الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صلاة والسلام على من بشر بالتسنيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قد بالمكتوم مولانا سيد الشيخ حمد تجاني رضي الله تعالى عنه وعن خليفته ووارث سره الشيخ عمر الفوتي تعالى إخوة الإيمان والعقيدة نهيكم بتهية الإسلام ونقول لكم كل عام وأنتم بخير بندرابي جولبي من تلميني أن سلمنا الإسلام سلمنا أنغو غاندو داي هرساتا تلمين دونغوان ما سلمنا أنغو سيدي دي كيسال يرمين دي بارك يو من إننفو ولي الله يو وني سيدي شخم التجاني دون تود سروج مومان cheikh umrul fuutiyi tall ñaagi ñaguima allah tabaraka wa taala yen wuri kat bandira bi julbi ka adi fof hesdi hesɗitinnedi e almudagal e yeeso khalifa men do cierne men cierne yaraban mbeɗa salmina dini alma mebe ruusa ud dawa iren ɗo mbawi ummade fof sohnaɓe moƴƴuɓe ummahatul muminin en onon foof min calmini on e ɗemgal ceerno men ceerno yaroban bandiraɓe julɓi pape mouhtar silla jarama présentation ma o rewi lawol hayso won hayso ke wolofo tan hanno moƴƴi timmi fewi a santa at kanta ak maltal kulla ɗum noon ko duwawu ceerno ma ceerno yaroban bandiraɓe julɓi nde ɗo jonde wona gulet hal pulare mbiyata ko wona gulet wona hannde fuɗɗi ngal ɗo diŋaral nduɗo suudo allah suudo allah ndu hersani arɓe ɓe ɗo kadi kersani saabu ɗo no wowti oɗo nde ɗo jonde bandiraɓe julɓi ceerno noon no noddo on e allah ene bismo on kadi alhamdulillahi rabbil alamin mi reftata eɗe ceernajo papp pap mouhtar eh, sillo tokoro baba mo saabu o limti seerem ɓe fof e hilifaɓe ɓe fof ko ceerna tan ne bismo on ceerna kadi ene wi on ko jolfu mbiyata ko massa coono e woppude moon haajuji moon heeɓe ummi tan koto jamaji mumen to e tafsir ngari ɗo ha joni duttaki galleji men guila subaka ceerna yii ɗum fof noon kadi ko saabi allah manihabarra adamahu fi sabilillahi harramallahu jasadu alannar kala jaaɗe e moƴƴere jaata ko ko sabi allah allah wimi harmini ɓanduma jeygol yo allah wattu en hen hande ko walde badri hande hande ko jamma mawɗe e l' islam hande wona ko hande rasulullahi wonno badre ne wonde temed tata e sappo e tata mana ɓo yadunoɓe ha darni kalimatu la ilaha illallah ko hande wonno ala ko wonno yiddi makko so wana kongol la ilaha illallah yo toowo ala ko wonno darne makko na wiide ɓuulu la ilaha illallah tuflihu man qala la ilaha illallah dakhala al janna dum tan o wiyanno mbiye la ilaha illallah male don kala biide la ilaha illallah al janna on la ilaha illallah non ko on cierne yaraban ummini kuñi kari addi dum nani dum do e asimatu sénégal wadi fere ha jotindire dendangal bandirabe julbi dendangal raison ji sappo e nayyi ɗi hen goto foof neɗɗo mum nen ɗo sous raison o goto foof neɗɗo mum nen ɗo haydara noon wona sohla makko so wona tan yo yimɓe gar ndenda kañumen fof paye allah inna allah ndewa allah kala ko dañi ndenda sababude allah walde badri ko hanki fonno wonno walde badri kono noon ceernajo o wi tawde hawri ki ñalawma aljuma hadrul juma ne woodi gaccen ɗum beela ma yaaj beela ɓesgu juli fof mbawa hawrude hen ko dañeto ko hen beela enen fof nden nden dañen ɗum ɗum tan woni yidde makka ɗum tan min gandidir gandirimo kadi wona hande fuɗɗi wona hande fuɗɗi lelatul isra ceerno mouhtar haalni on ɗo waɗama ɗo yeti fatou cheikh waɗama ɗo o haalani hen yimɓe julɓe jamma mawlidou nabi waɗama ɗo o haalani hen yimɓeɓe ko nafata ɗumen hande noon ko walde badri ñalawma hande o ko ñalawma hande o abou oubaydata ibnul jarrah warno bamum saba rasulullahi allahu akbar jamma hande o ñande walde badri bandiraɓe julɓi ko dañano e baraji malaikaji fo mbi allahu akbar kañumen fo ndende makko konngol gotol allahu akbar kanko abou oubaydata ibnul jarrah kanko goto o dañin ɗum walde badri ɗin baraji allah rokka en ɗum kanko warno ba makko taw nangue hoore wuuli babiraɗo no ummi makkatal mo karram ñande wolde badri addani ɗum habde rasulullahi addi ɗum tan ko ɓiɗɗo naati dini l'islam ene wonde rasulullahi omo elmini ɓiɗɗo ɗum tan addunomo ñande hen aywa kono ndeneɓe kawri taw des heures yoni ɓiɗɗo filtini laafa ka kaala makko mbo wanno wimba a ah, baba reno hoorema de an jibinimi kono hande rasulullahi ne ɓende am no fewi no fewi no fewi lay ndisa eɓe dutti eɓe kawroy hedde 3 heures moye hankkadi noon babiraɗo o himmi warde mo o filtini silama babiraɗo tan mana fan falaga o toppimo hakkude hoore hoore nde seeki jibril tellina ayna ene yettigel ɗo cukalel la tajidu qawman yuminuna billahi wal yawmi lahir yuwaduna man hadda llaha wa rasulahu walaw kanu aba'ahumu aw abna'ahumu aw ikhwanahumu aw asiratahumu ulaika kataba fi qulubihim l iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wayudkhilhum jannatin tajri min tahti lkhalidina fiha radiallahu anhu wa radu anhu ulaika hizbullahi ala inna hizba llahi hum lmuflihun sadaqa llah enen woni woni ndeɗo fedde woni yidde mon e nelaɗo allah woni yidde mon e seydi cheikh mo tijani woni yidde mon e cheikh mrul fouti woni notade men enen foof ceerno men ceerno yeraɓan a jarama yo allah yoɓ bisimilla on bandiraɓe ceerno ene wi on bisimilla on omo ñagono en enen foof kumtal haajuji rewɓe e worɓe noon sukaɓe e mawɓe ceerno a jarama 85 faade joni ko ɗum ɗo tan mbatta 85 de kalan man 85 la ko bo léegi signe bi ndi rek lay def lii rek laa ko xamee yàgg na waaw woote si lislaam rek kaay leen ñu topp yàlla même ki nga xam ne jàppul salaatul fati lima uxli bu malaanu wasif buñ ko lalee day wax naan jeger rek même boo jàppul jeger rek di di di di ñaax nit ñi si lislaam di ñaax nit ñi si xawlu laa ilaha illallah di wax leen wax leen dégg def leen dégg nekk leen si dégg rek bu leen yàkkamti lépp dañ leen ci fekk man de loolu laa xam waaw di wax nag li rasulullahi doon wax ifsu salaama wa adimu daama wa salli bi leyli wonnaasu niyam yalla ifsu salam kalɗo kawruɗa e bande salmin ɗum ɗum o wiyanno waaɗi muɗɗama kala mon goto mon jogui woto yaw yo rokku ñamminen no sahaba e mbaɗan ni nden nden ko jogui ɗon ko wa salli binnasi wal nasu niyam so jammo woɗɗi goto mon fof hayso darɗe ɗiɗi yo tinno ummu kam daro juulo darɗe ɗiɗi ɗum de min gandirimo dum de min dewrimo wana khalis wana haydara me min tabi koye gongo woni tan min ngari min gante makko e gongo ni tan foti tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun afaman kana mu'minan hay goto jabaake kaman kana fasiga alwi wi hay goto jabaake wad la yastawuna gonde gonge mo wonani gonga meeɗa foddi ɗum noon ceerno yo allah juutno balɗe masilla alhaji masilla mi salminimi juurima l'imam imam imam moussa gueyi waaw olof yi nag nee nañu wa waaxu wa waaxu gëléem xëjul si pantare voilà c'est ça kon ma yemle fii rek comme que cinq minutes la man ma def quatre minutes nuyu naa leen yal nañu yàlla may fekke ay déwén allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim سين خريط محمد المختارتين صلى الله وسلم على أفضل الخلق بالإطلاق سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع آله وأصحابه ومن نهج نهجه إلى ميتين بقي خمنا كد يوغات جرومي من إمام موما تخاو جاخل لما يجل نياري جوكو تشيرنو نياتي ما جوكو تالي بيرك لغات لي دون ñu mangi wax léegi mam gor tok maniko bo boo gisee li mu incarné ñi mu dajale ci hadaram mu man ko du pexe du alal laay ji sunu borom wax ni yonent bi wa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan galiza alqalbi lan faddu min xawlik wat naa ni bu dul woon yërmande ji nga amee mbaax gi nga am woyof gi nga am nit ñi du ñu la wër boo doon kédd kéddëral kenn du la jege te imaamul Junayd yi dañu ko laaj ni ko man nihaayatu mu ni al awdatu ilal bidaaya lan mooy àgg ci yàlla mu ni boo nangoo wàcc ci suuf mel ni jógoo àgg nga ceer na ku ko fekk si moo la gën a simple moo la gën a modeste moo la gën a yaru ngeen baal ma ci terme bi kon tabarakallah te ku ca nek la nga amone gem ko fonk ko ba nga ñëwee fonkale na la ko ah ku bëgg la nga bëgg bu la nexé lu bëgg nga bëgg ko waye ku bañ la nga bëgg bu la nexé lu bëgg nga bañ loola kon ñong izare koy ziaré diko yobënt ci mbokk yépp bi ci dess nak kaddu yi dama koy jox kilifa yi ndax alquran leg leg nga rir a ko wat ndax su borom bi nee bu leen ma waaral ku weddi waaral leen ma ki gëm ba noppi da ngay jaaxle te léeg-léeg yàlla jéppi aw nit ba dina wax ci ñoom mais du leen bëgg a tudd ndax feete suratu yaasin dafa wax ni wa sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuminuun du leen de moo xam nga waar leen moo xam nga bañ leen a waar jaru ko duñu gëm ñu ni ko ñan mu dem ci suratu baqara tuddu sen tour ni innal ladina kafaru la wax ñoñu la wax ni sawaun alayhim a andartahum am lam turisum tundirhum la yu'minun nga war leena nga ñak leena war duñu gëm ñu ne ko lutax tax mu ne xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisha wa lahum 'adhabun azim yàlla encastré seen nopp du ñu bëgg deg deg encastré seen i bët bëgguñoo gis dëgg encastré seen i xol bëgguñoo nangu dëgg ñu ne ko waaw yàlla kon kan la war a waar mu dellu dellu leen ci surtu yaasin innama tunziru man ittabaa dikra wa xachiya arrahmana bil xaybi xoolal loolu rek bul ma waaral ko weddi waaral ma ki gëm hmm? hmm? dangay ngay jaabante diggante ñaari ñaari saar yi ngir nga mën a dégg li mu ci bëgg a wax moo tax ñi fi toog ñépp waaraate wi bu dee waaraate yay na pour mu dugg ci seen nopp waaye lépp nu tàmbalee ko nag sant sant kat ndax fekke gi góor gi Mbàkke Mbàkke Sarr mooy woy juru imaam Mouhamad Lamine Sarr xam nga bët yi neexul woon dafa dafa sëggoon moo doon firil ñoom imaam Ndooy eh, alquran ndax silmaxa la waaye dafa mokkal mu leen di firil ba ci suratul xijri ca fin ba wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin lu muy firi moy fi borom bi wax ni jaamul sa borom ba keroog di la dab mu dal ne kon nak nan sunu baram fi bu suba bu fekkee deewunu nu continuer mu dem gañu te liko tagge moy bop sar wa ca top suratul nahli ata amrullahi mo ca top mo top ci ay bu terminer ataa amrullahi fala tastajiluhu subhanahu wa taala amma kon nag ndeke yàlla dina dégg kon tabarakallahu juróomi minute sax ma ngi bëgg ëpp maa ngi def comme imam Mokhtar Tine juróomi minute ma def diis waaye mu ni fa la tàmbalee doom ji ah waaw mottali yéenay baay ba mot li yéenay bàyyi ba kon nag eh, fii sax wallaay waru wax ndax su ma toogee ci Ceerno yëkkati kàddu suul ëdëb lay doon su ma toogee ci imam Moussa kadalik imam Ablaye Mbaye Cheikh Ahmed yu Ndaw maam Góor Toob nga xam ni damay duyee ci ñoom kon wërmoon yëkkati benn baat waaye ñu ngi lay sant nag maam Góor Toob bi ñuy bi ñuy ndogu mu ngi wax ci xelam naan bi ndogali pare rek la guddi gi mat sëkk ci xelam ma ngi wax ci xelam naan guddi dafa am benn góor gu am gan ndeysaan dalal na ko ci néeg bu rafet bu neex waaye mu reer fàtte ko bi mu ñëwee ah man day jaaxle na am naa lu ma naqari lool mu ne ko lan la mu ne ko dañu la fàtte reer gan gi ne ko naqar woo ci am am naa ci ko man mi reerul <laughs> waaw naqar woo ci am am naa wu ko man mi réerul waaye ñun macha allah reer nañu ba suur yal na yàlla barkeel ndax maa ngi lay jégalu bu baax a baax ci guddeel gi. ñu jox oustaz Abdoulaye Mbaye tabaarakallaahu moom tamit mu joxe juróomi minitam incha allah. waruma woon topp nag ci oustaz Massiré Kane alhamdu lillahi رب العالمين الحي القيوم ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله الحاشمي وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين ورضي الله عن صاحب القتم المحمدي شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني وجميع آله وأهل طريقته وجميع تلاميذه ورضي الله عن صاحب الفيض أمير المؤمنين شيخنا عمر عمر بن سعيد رضي الله تعالى عنه وجميع أولاده وقلفائه وأحبائه ورضي الله عن شيخنا الفاهم ما يرويل رضي الله عنه وجميع أولاده وقلفائه وأحبائه ورضي الله عن الشيخ الكامل العارف الرباني مولانا سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه جميع أولادي وخلفائي وأحبائي إخواني الكرام أحبائي زملائي أحييكم بتحية إسلامية الممزوجة بالمودة والمحبة والعشق والشوق ألا وهي asalaamu aleykum wa wa barakaatu. imaam si bii dafay yëkkati kàddu gu am solo ne njaabu lan gëléem xëjul ci cinq wante maa laa yudraku kullu laa yudraku baadu bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel li misli haza ah fal yaamalil aamiluun wa fi dalika fal yatanafasil mutanafisuun ñu ngi nuyu di ziyaar di ndokkeel ceerno hamidou bane ibnu ousmane ayyadahu llahu wa nasarahu wa matana bi baqaihi wa xayaati ci taxawaayam ci njàmbaaram ci xam-xamam ci dalam ci teeyam ci bëgg gum bëgg doomu aadama ci woyafam waaye ci maarifaam sidi haj malik radiallahu taala anhu dafa wax ne muxaasara mu aadala mu maasala day yiir nit waaye kii boo xoolee li mu wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam li mu wax Cheikhina Tijaani radiallahu an li mu wax Cheikh El Hadj Umarul Fouti radiallahu taala an li mu wax li mu wax li mu wax ba ci Cheikh Mouhamadul Bachir al Khalifatul Haali boo seetee lim ci wax ba noppi nag indi nag ijmaul umma boo gisee lim ci wax ci islaahu zaatil bayni pour dimbale jaami yàlla yi boo ko yéree dangay wax ne kii day bu doon ca yàgg kii day su ma jamonante woon ak moom walla ma defee moom benn waxtu dana am teraanga bu rëy waaye nag Seydi Hadj Malick ne na koy toogal bu la yàlla dimbaliwul sa jaruñu ci moom dana jafe waaye kii dëgg dëgg nag jombul benn jamono moo tax jamono bii day tiiture ci moom ndax dëgg yàlla mbooloo mi tamit dara jombu leen xadara bi dara jombu ko kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la ndokkeel eh, tabaarakallahu sagal nga sagal nga hadara Cheikh El Hadj futi radhiyallahu taala anhu sagal nga Seydil Hadji Malick sagal nga fa tabarakallah Cheikh bashir Bachir cherno Hamidou ñi ngi lay nuyu di le ziar di len dokel ci bés bu tedd bi bëgg rek bëgg bëgg bëgg mba yeyna ci ahlu badrin bëgg leen rek mbaa nga am yéene ci ñoom loolu garaat mënu koo gën a kowe bi aqmaari badrin ya ilahi wa sayyidi nga dégg lam ca teg wa bil malaa'il alak si fan kulla qummati sidil haj malik ahlu badrin sopp leen muy dëgg ci sa xol doy na garaat doy na garaat te ku leen sopp sopp nga ñu yalla sopp te ku sopp ku yalla sopp sa texe teewna aduna àdduna ak àllaaxira rawatina nak nga dajale ñu bax ci bes bu tedd teral len tuddé ko teral ahlul badrin kon serigne bi ñi ngi lay nuyu de le ziar de len dokkel waye nak di nuyu nak ulama yi fi teew fi moom wax fi fay jafé man ba si mii yëkkatee kàddu laa ne bone imam imam tin dama ne bone fii day fii day wax duutu fi duutu fi am soxla duutu fi am xorom imam imam masil la jóg ma ne yee bone waaye nag ñi ngi bég ci ci al oustaz Pape Makhtar Sylla ci taxawaayam waye bi xale bi jàngee alquranul karim ba teral dama ne imam musa mënoon nañu ñaan ñu tass jotaay bi billahi fi muqus fi mu jaar lim lim limundi xam nga boy bi mom lim wax moko tay lim ñu tanal fa tabarakallahu allah jaasi an al islaami xayran du nuyu nak di ziar ulama wi fi tew yeb ñu ngi nii toog ñii ñii ñii ak ak maaru ahli badrin la yal na yàlla dolli teraanga e, di nuyu nag Safina TV di nuyu Safina FM di nuyu e, maa ngi fi gis sunu caméraman yi ak sunu réalisateurs yi ak sunu dégg nga techniciens yi maa ngi leen di gis di nuyu bu baax waa xadara bi yépp te xadara bii kët ci xadara yi yàlla tànnal boppam la bokk ndax ñu ngi ci gannaaw dégg nga sunu mbër moomu di Seex Laaji Umarul Fuuti radiyallaahu taala an kon nag ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax di leen béggee di ñaan borom bi eh, ndax am na foo xam ne benn minute boo ko fa defee jariñu fii moom ku fi ñëw àgg suuf tax àgg suuf benn waxtu maanaam benn minute danga jariñu kon nag yàlla na ko yàlla na ko yàlla nangul man nag dafa am benn programme bu ma takkoon ci sama xel bëgg ci jaar waaye bi imam tin jëlee kàddu gi dafa ma réer la ma bëggoon wax dafa ma réer complètement waaye alhamdulilah rabbil alamin waaye far oustaz masil la far ci jaar léegi damay bàyyi li ci des dégg nga kilifa yi toog ñoomit ñu àggale ko waaye man dama bëggoon Cerno Hamidou li ma dégg sànq waa ji doon way di ko di ko di def xas di way xasida bi mu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam boobu laa bëggoon ñu teg ko ci taabal ji faf mu yëkkati bi mu def ci Cheikh na Tidiane radiallahu taala anu man buñ paree ñu teg ci bii man loolu laa bëggoon faf kii na dañuy dagg par cinq minutes ma ne kon loolu du fi xaj waaye kon ñu ngi nuyu ñëpp waaye nag bu yoon jeexul waaxusul waaxusul du jeex ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen ziyaar di leen ndokkeel di leen bëggee asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gis nga nitu àdduna yi bu ñu bindee benn livre ba pare dañuy dajale nit ñi ni dañ koy dédicacé ñun incha allahu rabbi danañu ko defal benn jataay fii ci ndigalu sëriñ bi woo leen yéen kilifa yépp fekk kenn ku nekk am nga ci benn nga téye ko xool ko ba noppi ñu defal ko jataay fii boo xam ne noonu nga ko sàkkoo noonu lay amee sëriñ bi tamit ñëw toog fekk jataay bi moom ci boppam wax ilham yi mu am ba bind téere yooyu ci kàttanu yàlla incha allah daañ ko organiser fii ci zawiya maam Cheikh Omar te bu boobaa daañu invité waat ñëpp invité waat télévision yeeg yëpp ndax li nga wax dafa am solo lu am solo nga wax yàlla na yàlla fayal ñu la ci barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñu jox kàddu gi oustaz Gata Guiyu tabarakallah mom tamit mo feñal yéeneem oustaz bismillah alhamdulillahi rabbil alamin ida xuyira al abdu bayna al amri wal adabi faxtaara al adaba yanal bi dalika al matluba insha allah munuma wolof sax waaye ma bégeel la ko Cheikh Mouhamed Bokar Kane وأمني وتركك الأدب هو الأدب إذ كنت بين الأدباء يا أدب بونك شي ديغانت ني خام نيغا وار اورمال nga اورمال لين واي ني ديغل لا جوخ لا ديغل nga ديفكو ديغل بوبو توبكو مو غنا ام سولو شي اورمال لين man nak yakarna insha allah top ndigal bi dina nek top ndigal nekale ormale insha allah non bandira bi julbe goto fof salminama juurama yafnama eɗen cunnino wonastanno bi sunnati nabi sallllahu alayhi wa sallam alqa'il anzilu nnasa manasilahum goto foof eɗen jippina ɗum e jipporgal muɗum eɗen dokka ɗum mana teddugal muɗum eɗen dokka ɗum goƴe muɗum no foti rokkirede e teddugal eko handi ceerno o jiyaɗo allah o jinnaɗo o mawniraɗo o miniraɗo o goto foof joppine jipporgal muɗum ko heddi noon waɗi mi wiide wa maɗa aqulu hol ko jogormi haalde gondumi ko e ceerno am sa wondi e ceerno ma non dañata ko kalda kon non tawde woni yamirode allah ina gasa kanko badirdo ni o o rokkama tawfiq e ɗum sibu se en duttima e defte meden won ko janginta en ma ummima yukhassasu ana dakhilun fi umumihi wa amma idha khussistu fi makanin ربما يوافق ذلك ma taallamnahu fi umuri dinina alhamdulillah min noon ko jiɗmi haalde tan ko geɗel gootel yidde jaabaade mawɓe ɓe holko jaabotomiɓe wonno koɓe kalanno ɗo ko fof ko gwaƴa ko fuɗɗi haalde ɗo koko mawɓe ɓolɓe puɗɗi haalde ɗo joom bahe daneje en nayuɓe e diine yettiɓe e allah gaynuɓe hankkanti e gueɗe diine muɗumen kucci e allah kedditi e allah ɓen so kaali holɓe kaldata kaldata koye sukaɓe ndekede ceerno o ko waɗi ɗo henne ko ina haani so mawɓe ɓe kaali joom taƴirɗo ni programme o allah rokkimo tawfiq lombude sukaaɓe hakkunde mawɓe ɓe beele sukaaɓe ɓe tabitinana mawɓe ɓe wonde paami ko mawɓe ɓe kaali ko nani ko mawɓe ɓe kaali ko nganndi nde kadi suka ko ɗum ɗo foti waɗde daña ko njaabi daña ko ngolli ɗum ɗon kadi allah ɓuuɓnira ɗum ɓerɗe mawɓe ɓe mana allah heɓidira ɗum ɓerɗe ɗe walakin liyatma inna kalbi itmi e nan oɗon mawɓe ɓe keɓa ɗum holko woni kaaɗon haala hakkunde mawɓe e sukaaɓe jooɗiren ko jonde badri sen janngi qur'an men tedduɗo o en haalani en waqia gaswatu badrin so tawi en duttima e suratul anfal allah haali heen qissa badri ko ɗum udditiri simore nde nde o udditiri simore nde e lematawa nde ɗo jonde nde jooɗiɗen ɗon ko ɗum wonno waqi e kewnoɗo hakkunde annabi sallllahu alih w sallam e saha baɓe allah jaabi en ɗum bidalil jooɗiɗo ko mawɓe jooɗiɗo ko sukaaɓe haaliɗo ko mawɓe sukaaɓe jooni puɗɗi haalde walde badri lombino ko hakkunde mawɓe e sukaaɓe nden ɓe njehi walde nde ɓe ngarti ɓe keɓi ganngal ɓe pooli ɓe ngarti woni luural hakkunde maɓɓe sukaaɓe ɓe mbi minen ko minen gonno joomen sembe en ko minen ngoni dariɓe minen ngoni haɓaɓe minen ngoni joginoɓe fof wadde ko minen poti nawde ko dañako mawɓe mbi ala wona noon nde kaɓete ɗon nde ko minen cuutno ara rayiji so si heefere ɓe cuynima kula ganda julɓeɓe ne keewi doole wadde minen ko minen poti nawde luural woni hakkude sukaɓe ɓe e mawɓe ɓe kono luural ngal wona luural holko firti holko tagi wona luural sibo alhamdulillah sukaɓe ɓe e mawɓe ɓe foof ɓe ndendi koye gueɗel gotel ɓe ndendi koye haɓɓanede diine allah nde kadi sukaɓe mbatten haqqille mawɓe ɓe no goniri jeeyaɓe allah kucciye allah ni enen sagataɓe ɓe ɓuuri handude hen ɗum ceerno o jangguinta ko ɗum o tindinta so wonaa dum minen beedo e fedde men deedo ɗo gandi so wonno nunɗal en jooɗotaa koye jodi be dobe kono ko yidde findinde sukabe e yidde tindinde sukabe dum wadi luural ngal den yani hakkunde mabbe alla wi garema ana haa jooni mi seernde on be namdi annabi sallallahu alaihi wasallam alla jabidum wanda yasalunaka anil anfal allah wima qulil anfal lillahi wa rasuli ɓe ma mele ko sukaaɓe ɓe poti nawde gangal walla ko mawbe foti nawde gangal gangal ngal jeydum ko allah e nulaaɗo mum no fecciri fof ko non so nulaaɗo fecci noon qulil anfadullahi war rasul mana ko allah e nulaaɗo mum jeey gangal ngal so nulaaɗo fecci gangal ngal no fecciri ni yomunire non dum firti mana sukabe ina poti tawede e mahdar diine so noddi sukaaɓe hor gedal won aduna gedal mon won aduna tan hor geɗal mon wonde mana yiyeede aduna e huccude e aduna e dañde e aduna naam jaɓi dañe e aduna mbaddon heen kono diine woni hoore diine woni hoore la hayra eh, mana fi fi fi duniya bila diine aduna mo ala diine hay hunde nafata cagatagal maɗa cellal maɗa doole maɗa kollirta aduna ɗe ceerno waɗi e diine ceerno o ko ɗum jangguinta ko ɗum mana ha joni tindinta diine noon sa dañi ɗum wondi hen mana aduna maɗa foof hawra ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع لا خير في دنيا بلا دين aduna mo ala diine ɓolo aduna ɓolo ɓolo hay hunde ala ko nafata ɗum noon enen sagata ɓe ko enen kaaldete nde ɗo jonde so jooɗima ɗo so wiyama ko wolde badri a ha kay ko wolde badri sibo wolde badri kana guswatu shababin idan ya ayuha shabab halummu garte e diine men gande ko waɗete ɗo ko foof ko enen mbaɗante ɗum ɓe kaaliɗo jooni ceerno o yidde ɗum moƴƴere huccude ɗum e diine noddu ɗum yimɓe e diine kala noddaɗo e diine ko sagata ɓuri hannde e noddede e diine ɗum noon yo allah rokku en ɗum yo allah rokku en famde ɗum yo allah rokku en teddirde ɗum minen noon amin jetta allah hamdoulillahi rabbil alamina simu ndeɗo jonde wonko ɓeydi min ha heewi huccidde e jeeɗo ɗeɗo jeese tedduɗe huccidde e ɗiɗo chahsiyatuji mawɗi ɗum ko so woni faida in kana fihi maslahatun aw manfaatun falana alhamdoulillah ceerno yo allah yoɓe moƴƴere dum ɗo ko an sababu kongol gol non juuti ina wawi taw waqtu o yoni ko halate ko hen wawa halede ha sella sibu sa hucciti do kuccitɗa do awawa halde ko selli awawa halde ko timmi kono timmuɓe jooɗiɓe ɗo ɓe ina timmina maana ko hala ko idan a'tadhiru fi kulli ma fihi min taqsir wa min nuqsan walakin inchallahu taala eɗen jorti ko ɗum timmuɗo to تو to li anna la yujad huna illa kamali فإن كان إلا, لا إلا أهل الكمال إن شاء الله سيكون الأمر بكماله يكمل الناقص ذو الكمال حتى يصير كاملا في الحال فنحن بنقصاننا وأنتم بكمالكم فكملونا إن شاء الله بكمالكم والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله سوكو ديفي نيغي ñu استاذ nuyu كوياتي يكسيني شي جوتاي بي ميغي ني توك تبارك الله دي سوبي سيرين بي di soppee ñi fi toog ñëpp tubaarakallaahu ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di ko wàcce wàccuwaay ñu ngi wax ñi nekk ci biti ak jigéen ñi nekk ci biti yëpp jullee gu ñu gee bu ñu noppee rek incha allahu rabbi léegi dañuy taxaw julli gee daldi di naafila ci kàttanu yàlla incha allah ñu ngi koy fàttali ñi nekk ci biti ñëpp di laaj ndaxam julli nañ gee jullee gu ñu gee bu ñu noppee rek dañuy julli gée ndax waxtu géew yi dafa yaatu loolu moo tax su doon beneen waxtu dañuy julli ba noppi soogaan di continuer waaye comme waxtu wi yaatu na loolu rek moo waral loolu su ko defee ñu jox kàddu gi Serigne Cheikh Tidiane Niang bu maam Alxaaji Tidiane Niang radiallahu taala anhu bismillah bi ibtidaai ya ilahi albasmala wa tayibi alruuxa bi tiibi alhaylala واجعل حلاوة هناك الحوقلة والانتهاء يا إلهي الحمد له والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi fi teew yi yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di ziyaara borom bés bi di ko ñaanal yàlla li mu taxaw di ko liggéey roye ko ci sang ba muy sayyiduna Muhammad fab tànkam tëkk ci rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak alquran sopp yonent bu lool صب شيخنا أحمد التجاني قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين ñuy ñaan yàlla yal na yàlla saxal ko di nuyu suñu mbokk taalibe yi fi nekk yëpp sama goro sax mi ngi nii toog sama rak moom lay seeyal muy toog كي مان كوي دوراي جيستي واي دما كوي ديغ وقتانم فتبارك الله من كو جوخون وقتان من نكو وقتان بومو جيخ دما واخون ني صاح نانيو فاب كين ريك تي نون دويلوكو مو واخ واخ جي ييب داخ كين نكو واخ واخال nga ييب دي نوي سي مباي فتبارك الله سما وولير سما خريط موسى جاي نك دما كوي بيرال لوخو باسكو بوما خامي سيرين بي موم موم اندي تي موم تيت والو سنت يالا dafa am charte fatiha dafa am juróom dafa am ñeenti jàngin yu bokkul boo ne yow yàlla maa ngi lay sant yàlla ni des na yonent bi nee na abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajraytu nicmati yi boy sante yàlla te xéewal gi kuko yàlla jaarale ci moom santuloo ko yàlla daf lay delo sant ka te xéewal gi ñu am yépp ki ku jikki yàlla jaarale ci mom moy sayyiduna muhammad moo tax sidil xaaji malik yalla ko yàlla fayal alhamdulillahi dil ijaadi dil ijaadi awjada al awalima min sirri alhamdi kon alhamdulillahi dil ijaadi boroom amal ngir ki mu jëkk amale lépp lu am mooy sayiduna muhammad kon comme abdi lam yashkur ni ida lam yashkur man ajraytu ni'mati alayhi te suñu am yëpp yàlla nga ko amele ci muhammad kon foo sante yàlla fokk nga sant muhammad dooraa sant nag sa waajur ndax saam ci moom la ko yàlla amale dooraa sant nag sa sëriñ dooraa sant ki la jàngal xamal la moo tax sant dafa am solo mu am beneen sant nag waxuñu la in shakartum la azidannakum fokk charte yi ñëw ba noppi boo santee yàlla ba noppi ke yàlla jaarale xéewal gi nga sant ka mu des beneen ah moo di اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور sa cër yëpp danga ciy sant yàlla xam la doomu aadama bu nekk responsabilité am ci boppam la jóge inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masuula yowmal qiyaam kenn ku ci nekk yàlla dana la laaj sa bët loo ci xool parce que yàlla waxoon ne waqul lil muminina yaxuddu min absaarihim bu dee jigéen ni mu ne waqul lil muminaati yaxdudna min absaarihinna Sénégal bu yowmal qiyaamee kenn ku ci nekk yàlla loo la nga xooloon mu di la ko laaj bëtu sëriñ bi bëtam lañ koy laaj bëtu taalibe bi bëtu taalibe bi lañ koy laaj bëtu keneen noonu yow ba la nga wax beutu kenen setal yow sa beut buñ la ko laajee la nga ci xol inna samaa wal basara sa nopp lo ci déglu wa samaaka sun an sama'i qabihi ka sawni lisani an nutqi bi li nit ñi di déglu bés bu nek ci ay cëw ak fen ak rambaaj ak تجيب يا لدن الأقوال يوم القيامة كن فوجم دما وحني إذا زلزلت الأرض زلزالها ما يدم صح ليك سمو خج في <laughs> آه. يوم القيامة كونفرنس بي موجي تي كونفرنس بي مودي إذا زلزلت الأرض زلزالها تكونفرنس بسوفا كويدف سيرين بي دوكو ديف te temu conférence bi yàlla moo koy jox suuf te conférence bala nga koy def nga def première première euh, dem sa ba ne ah waxtu conférence nangam am na annonce annonce bi mooy ida zuzilatil ardu zilzalaha kuy dem ci conférence yi foog nga génne ci sa kër وأخرجت الأرض أثقالها boo déggee annonce bi te mooy iza zulzilatil ardu zilzalaha wa qala al insanu ma laha annonce bi lu xew fu ñu jëm lu xew ñu ne yéen ñëpp daa ngeen dem taxaw ci benn suuf bu bokkul ak seen suuf bi xam nga yàlla dafa bind suuf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ñu yàq suuf tilimal ko يالا نينا بو ألغي يوم القيام سوف سنجن ياق دما كيوب اندي بنين سوف بوسيت يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزول الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قتران سيدي الحاج مالك نانا بو كوروغي يو يالا يانا نغنو ستران امين استر لنا بسترك الجميل في الدين والدنيا بلا تفصيل استر لنا بسترك الجميل وهو يسر والدنيا بلا جورجينا واستر لنا بسترك الجميل في الدين والدنيا بلا تفصيل استر لنا بسترك الجميل والله الدين والدنيا بلا انصر لنا بسك الجميل في الدين والدنيا بلا تفصيل أغرق بنا ربي بحور الكرم والعافي والرضوان يا ذا النعم انصر لنا بسترك الجميل في الدين والدنيا بلا تفصيل ah kon nag ñu yemale ko foofu rek di ñaan yàlla nii ñu fi teewe ren yal na nu yàlla may ñu teewe ko déwén yonent yàlla yuusufa ci lay at ci lay arrêté yonent yàlla yuusufa dañ ko wax ni ko li ma tajuucu wa anta ala xazain al ard fa qaala inniya أخاف أن أشبع فأنسى الجائع dafa yore magasinu suuf ci jamono bekkoor dere bi tey nit ñi xiif muy yendoo muy yendoo koor ñu ni ko li ma tajuu wa anta ala xazain al ard lu tax ngay revitaay nit ñi ci jamono bekkoor ba noppi ngay xiifal sa bopp mu ni maay jëkk xamal sama bopp luy xiif ngir ma gaaw a xettali ñi xiif yàlla nak ni ko acte bi waxuma julli waxuma wor waxuma azaka mais acte bi rek dana tax dana guddal sa dana guddal sa fan ndax fa amma ma yanfau nnaasa fa yamkusu fil ard wa kadhalika makkanna li yusuf fil ard wa numakkina lahum fil ard inna makkanna lahu fil ard maakisiina fihi abadan ma jox leen ko nag ayatul muksee ngoog aaya gudd fan aaya gudd fan ku ko bëgg di jox nit ñi ñam te di ko def ngir yàlla nag boo bindee juróom-ñaari aaya la nga boole ko ak juróom-ñaari aaya eh, fatiha boo ko dee dikkar ak di ko sangoo ak di ko naan daa gudd fan magama ko jox nag بسم الله الرحمن الرحيم قال فأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض الحمد لله رب العالمين ني ونمكن لهم في الأرض ملك يوم الدين إنا مكنا له في الأرض إياك نعبد وإياك نستعين قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوا بقوة كثينا فيه أبدا بجلوم نياري آيفك من فكنا fekk دوغالي ما ku ñuy وات سكر لبورينك تما آه، كلفة جماعة حما جحكم واو لما بقول مقد آيات المكسي آية قد فأما الزبد فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ونمكن لهم في الأرض إنا مكنا له في الأرض ومكنا له في الأرض قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة ماكثين فيه أبدا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dafa guddi te nit ñi sonn nañ moo tax ñu jële ko noonu sànni ci rek liñ ci bëgg a sànni nag mooy li sëriñ si wax ba pare waaye nag surtout nag sëñ ma silla loolu mu waxoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla daf ko wax ne fa bi ma rahmatin min allahi ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لو رك لاي ديلو سي وات سي تيرنو مو فاتلي لي مو واخون ني رك يونت بي صلى الله عليه وسلم بو جيسي صحابه يي ديم با مناتوني لا موغ لو تول ني فراكسيون دو سكوند موي مباخ اك ليوت اك تابي اك يينه جام اك جامال رك موتاخ اك بغلين motax tax ba mënatu ñoo fexe ba joggé ci yow cierno yitam fofu lañuy ñëw ak mom ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ko yàlla lon nga xamne fu l'islam ag fu yonent bi yóbbu l'islam rek sahaba ye tax mu man ko fa yóbbu sallallahu alayhi wasallam sallam motax yitam xam nga moom ñoom jàppe woon nañ ko ne mooy ashraful xalq ñoom doon dañu jàppoon ne daal du seen moroom ci dara xam nga am na benn délégation boo xam ne bu jógoon ca ruum ñu ne ko woon demal seeti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ba dellu dafa wax ne man de dem naa ci muluk yi nekk ci àdduna Xaysar ak yep yep Fars ak yep Faris waye dal kima gis ciofel gi ko ay nitam sop cër biñ ko jox bëgg giñ ko bëgg musuma gis ci aduma ku andak ay nit ben buur ci aduna buñ bëgge ko joxe ko cër non ndax kima fa gis bu teufle bala moo ag ci suuf ñom ñépp ñu kapte ko wo bu waxee balaa àggal ñu exécuter lu mu bëgg ñu bëgg lu mu bañ duñ ko sax jege loolu dëggaat rekk foofu mu waxoon ndax yonent bi sallallahu saxaabaam yooyu tey ñoo moomee ci bis bii ndaxte ñoom ñoo jëloon seen bakkan jënde ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasalam moo tax yonent bi defu leen woon ay maanaam ay taalibe daf leen a defoon ay nawle boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gis benn tey Ubay ibnu Kaab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ne ko sama borom de moo ma wax naa ñëw ci yow jàng nga jàngal la alxuraan Ubay ne ko man sama tur yon yàlla daf koo tudd ci asamaan sama tur la wax Ubay ibnu Kaab mu ne ko waaw sa tur la tudd ne naa ñëw jàng ci yow alxuraan ubay rangooñ yi di tuuru beneen wax ba ñu ne yonent bi sallallahu alayhi daf ko ne yàlla moo ma wax naa jàng lam yëkku ni ci yow ubay ne këpp yuuxu yonent bi pour won la fi mu tegoon saxaaba yi xam nga Seydina Aliyun yonent bi may na ko soxna Seydina Omar yonent bi takk na doomam Seydina Aboubacar yonent bi takk na doomam Ousmane radiallahu anhum may na ko ñaari doomam kon loolu mooy jëf leen a jëloon def leen ay nawle cerno nag loolu la def xam nga li ëpp solo mooy laa yuminu ahadukum xatta yu li axihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen ak ngëmam du dëggu lu dul lim bëggal boppam la bëggal ñépp manoon na bu tàntee ku mën a def ay xasaa it kay wax dëgg yàlla manoon nga buñ la tàntalee rek nga toog ñun ñëpp ñu toog di ko déglu waaye déedéet day wane ne man yéen kay yéen laa bëgg ngeen fés pour nit ñi xam yéen ay kan kon nag yal na yàlla yokk martabaam yal na ko yàlla boole ci asxaabu rasul martaba yooyu yal na ko yàlla def wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. mbooloo mi ceerno nee na gannaaw sant yàlla julli ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngërëme ceerno men Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ñu ngi ñaan mawlaana tabaraka wa taala yal na yàlla dolli ngërëmam ci suñu sëriñ mawlaaya sayyidi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu kankoy dendangal xalifa makko y muqaddame makko moom ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ko wuutu ak mboolem muqaddam yi nga xam ne moom sayyidi Cheikh radiyallahu taala anhu am na ko ci kaw suuf dendangal al makko yi makko fof ɗo mbawi wonde ak mboolem ay taalibeem ak mbollem mbooleem fuñu munta nek ci kaw suuf yàlla na gogu googu dotteeku seni kaw palto hen non wasil meden fewde makko molana cheikh alhaji muɗum fadiyallahu taala ñu ci tan kenn nak ko xamne moy suñu jokk way ci mom sayyid cheikh radiallahu taala anhu di goru yàlla ba di mawla ya cheikh alhaaj umar alfuuti radiallahu taala anhu kan mi khalif mabbe kambe fofu woni mawlana cheikh alhaaj malik radiallahu taala anhu moom ak mboolem ñi nga xam ne wuutu woon nañ ko rawatina suñu kilifa ga di mawlaaya sayyidil haaji malik si radiyallahu taala anhu soɗum yewtino wiidendagal wonɓe ɗo ɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno gannaaw nag ubbi gi sant yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñaanal suñu sëriñ sayidi cheikh radiallahu taala anhu ak suñu jokkuwaay ci moom mu ngi wax képp koo xam ne yaa ngi fi teew assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu machallahu tabarakallahu ngol ɗon konngol daɓɓol kono noon ko doonigol manaji ha keewi nee sant ñeel na yàlla kàddu gi gàttu na lool waaye nag ëmb na ay maanaa yu bari ɗum waɗi oustaz jabel kuyate ɗo haali ɗon ngol ɗo konngol o haali ɗon tan ne wayi kala ko cohliɗen fof naati e ndeer he moo tax oustaz euh, jabel kuwaate bi ko nee wax mu ne déet ñu forcé ko na wax donte ne nuyu la bi mu ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ceerno nee na kàddu gi ëmb na lépp te it motal na lépp sabu kala ko neɗɗo dañi so dañaani jam ma ndaartu ma waccu ko dañi ko ndaartu e jam nee na ndax nit mboolem loo mun a am ci kaw suuf bu la yàlla wërsëgalul jàmm di nga wàcc loolu dem wuti ji jàmm sabu koye jam hunde fof heƴata ndax ci biir jàmm la lépp di xaj ko jam wonata sababu eh, hiɓindaade nee na jàmm mooy nekk sababu dal hiɓindaade hokkat wonata sababu kisal nee na dal nag moom mooy nekk sababu mucc kisal wonata sababu yurmeende allah nee na mucc nag mooy nekk sababu jot yërmande mawlana tabaraka wa taala ɗo yurmende allah naati fu yërmande yàlla nag tàbbi foofu nag barke tàbbi na fa ɗum noon kanngol konngol ngol ɗon ngol seeka e innde allah ngol hokka kadi julɓe yo ndiworngol allah moo tax kàddu googu dañ ko xotti ci turu yàlla waaye tamit ñu jagleel ko jullit ñi nañ koy awante seen biir assalaamu assalaamu aleykum assalaamu allah witee salaamu nee na baatu assalaamu yàlla moom moo tudd salaam te salaam ko konngol maw ko innde mawnde kadi ko konngol mawngol nee na salaam tur bu màgg la waaye tamit kàddu gu foor la sabu nela sallah sallam wi hunde fof ne jogii qur ne wo jogii ɓernde ɓernde qur ɓernde qur'ana ko yaasin ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lu yàlla bind am na xol waaye xolu alquran al karim mooy suratu yaasin ɓernde yaasin noon ko salaamun qawlan min rabbir rahimin nee na xolu nag saaru yaasin bi mooy salaamun qawlan min rabbir rahim dande salaamun qawlan min rabbir rahimin ko salaamun watan nee na nag ci biir aaya salaamun qawlan min rabbir rahim xolam mooy baatu salaam bi kese tamit on salaamu noon ko hen al islaamu yaltina nee na ci biir salaam googu ci lañu xotti génne ci al islaam islam noon kala gonɗo e nder islam gonɗin islam fayi koyngal mum islam an heɓan kisal ɗo keɓa kisal janngo nee na biir islam nag képp koo xam ne nekk nga ci gëm ko di ko joxe di ko doxee diko ko waxee di ko jëfee yow yàlla dana la defal sutura di nga am jàmm fii ci aduna waaye tamit fële ca àllaaxira tamit insha allahu taala di nga am jàmm heccinde mo hoccite moon onon fof wiide on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu loola tax ceerno nee na tamit jël na kàddu googu jëmale ko ci ñun ñépp muy góor di jigéen mu ñuy wax assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eɗen jetta allah eɗen E ñu ngi sant yàlla sant goo xam ne ci mboolem xiiwal bu mu munta feeñal rek moom yàlla ñu ngi ko ciy sant e ñu ko ciy santee nag ci nangul ñaan gi nga xam ne moom mawlaana tabaraka wa taala nangul nañu ko ci ñaan yi nga xam ne moom lañ ko doon ñaan eɗen guurtina oɗo jamma eɗen teddinir ɗum imam moussa alhamdulillahi rabbil alamin hitaande fof mbiyen yo allah hokku newdo ala saa mo wuuri allah jaɓani en duwa mum hikka kadi allah jaɓani en eɗen ñaago kadi haa hannde yo allah hokku newdo o saa mo wuuri kadi taw eɗen mbiɗen gustaki nene sante ñelna yallah li ëpp ñaar fukki at ñu ngi dekkal di màggal guddi gii nii at mu ne ñu daan ko teralee suñu mbokk mu baax bi di suñu sëriñ xaaj muusa imam muusa gay bu ñuy demee bay ñaan nag ne yàlla yàlla nag ñu may fekkee di wén mu ñuy nangul mu ñuy nangul ba li ñu ñaanoon daaw jéeg yal nañu yàlla may fekkee de fekkee nañu daaw fekkeewaat ren kon ñun tamit ñu santaat yàlla yal nañu yàlla mayaat fekkee déwén bii di ñëw tamit insha allahu taala so ɗum yewti noon kala ko nodduɗa so tawi a wondi e yimɓe maɗa ɓe ganduɗa alhamdulillahi rabbina oɗon ndendi anni oɗon ahli zeyri wa fasadi ahli lfasad allahumma aslih man kana fi salahihi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 ya ñun bu ko defee nag ñun ñëpp yàlla nañu yàlla boole te jéggal ñu nee na budul nee na nag sant ñeel ne yàlla lépp loo woote te yàlla dimbali la ci li ngay woote yaa ngi ànd ak mbokk yu takk yu dëgër te loo woote ñu wuy si la yàlla ne nee na woote googu nag insha allahu taala dana am jeexital tey dama dana jëriñ tamit Pape ñalɗi kewɗi musidɓe ɓeydannoto nen haj pape mahtar waxna ko sànq bëri ay bis yi ñu fiy woote bisi lislaam waaye sa yi ñu woote mbokk yu tedd yi kenn ku ne dagg sa yitte ñëwuy si woote ceerno boobu te alhamdulillahi rabbil alamin kono kewmi wiide ni enen en cohlaani quantité cogol ɗen ko qualité nee na ko ceerno di waxee saa su ne alhamdulillahi rabbil alamin ñun soxlawuñu quantité qualité ci boppam moom la ñu soxla alhamdoulillahi rabbil alamina ɗo tuggi tan ñaamo ɗo walla tuggi tan nanda ɗo haa fiiltoyi kala gonɗo ɗo ko qualité neena sante ñeelna yallah fo tambale caammoñ walla ndeyjoor dem baddellu siwat ku fi nekk kune borom qualité la alhamdoulillahi rabbil alamin sa noddi yimɓe e allah yo taw allah ne feeña heen neena sante ñeelna yallah sa yo woote nag mbooloo lu jëm ci yallah neena bu ñu demee nag ba wuysi nan ñu gis ci biir woote googu yallah laarbaami gila puɗɗiɗen eɗen mbaɗa ɗiɗo ñalɗi ala fof ko yeeti hen so wona allah nee na sant yit ñeel yalla biñu yalla ñu ci woote bis yu mel ni saa yu ñu wootee amul lenn luñ ciy luñ ciy gis lu dul mawlaana tabaraka wa taala alhamdulillahi rabbil alamina jengi non han kadi nam kewɗen juulde ko 9 h ha joni woni min wi moye han kadi nam haala ka wawataa juulde nee na sant ñeel na yàlla commencé na guddi daan nañu won daje bu ñu demee ba 9 h ñu du liggéey waye tay nak waxtu baangi ngi toll ci côté minuit yoy guddina motax wax ji munta guddu sowona tan ko musidɗo meɗen miñi euh mohammed bokar tal al gatagi ko hali ko to suratul anfal ko don tan woni wasiya mo tan me yimbe be enen foof njaggen don mbaden dum mbaden fere kadi on don wasiya kadi ne saro sakto beele goto foof ne heba hen nena alhamdulillahi rabbil alamin lu mu ciy cité rek moo lu suñu mbokk di doom di taalibe di xarit di Ceerno Mouhamadou Bokar Taal almashhur bi Gataagi li nga xam ne moom la cité ci suuratul anfaal ci diggante mag ñi ak ndaw ñi bi ñu demee ba dellu si lañ fa am Ceerno nee na ñaax yooyu ak ndénkaane googu moom rek la bëgg feeñalaat ngir ñun ñëpp ñu jëriñoo ko ay tamit ñu ñëpp ñu tamit ñu ñu jublu ci njëriñ bi nga xam ne moo nekk foofu eyi won phrase gooto goɗɗo e simoore ndeen ɗon ko on ɗon phrase jiɗmi mi wasiyade e hooram mi wasiyo on ɗum gooto meɗen fof wasiyo on hoore mum wasiyo on yimɓe ɓe fof beela ɗum ne yaaja nee na dafa am benn phrase boo xam ne moo nekk ci biir saar bi moom la bëgg a jiital ci boppam dénk ko boppam waaye tamit dénk ko ñu fi nekk waaye tamit dénk ko jullit yépp gannaaw bi mu ko dénkee boppam dénk ko ñu fi nekk dénk jullit ku ko dégg boo demee tamit yow tamit foo ko mun a yaatal rek nga yaatal ko ndax message boobu mun a jot ci àdduna bi yépp fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum moo di ni fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum woni kulen allah ndewen allah ndewnden taw sabu allah mooy nañu ragal yàlla moytandiku yàlla topp yàlla waaye tamit ñu ñëpp ñu ànd bokk ragal yàlla nañu ragal yàlla jaamu yàlla te defar suñu diggante nañu ànd ragal yàlla te jaamu yàlla te bokk defar suñu diggante ngir jëmmi mawlaana tabaraka wa taala kulen allah ndewane allah ndewniren ñu ragal yàlla topp yàlla bokk bolo refatal lu nekk suñu diggante ngir jëmmi Maulana tabaraka wa taala nee na buñ ko defee njëriñu aduna ak àllaaxira yépp mun nañ ko am ci biir gayniranmi tan ko ceerno meɗen jinnaɗo meɗen ceerno bachir mountaga ɓaha cheikh radiallahu taala anu ene salmina on ene juro on ene duwano on ene ñaagi on duwaw yo allah hokkene oɗo saamuuri assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ceerno neena daal fa muy daanele mooɗi ni suñu wayjur suñu sëriñ suñu kilifa di suñu yaakaar di ceerno mouhamadoul bachir mu ngi ñuy nuyu di ñu ziyaar di ñu ñaanal di sàkku ci ñun tamit ñaan daal ci gàttal fii la ceerno di daanele wax assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu hade kam noon noddu haalde inde yimɓe ɓe pam mouhtar haali neɗɗo noon hakkata ɗum hankkadi ndem hoore nee na ñi fi teew ñëpp boo gisee Thierno citewul turu kenn ne maa ngi nuyu diw nuyu diw niiw diw nee na xaaj Pape Makhtar nuyu nañu ñu fi nekk ñëpp ne nit doo maye bopp rocci làmmiñ boo ko defee dafay mel ni comme li nga may woon dëgguwul ci yow moo tax Pape maxtaar tudd gi mu tudd kilifa yi fi nekk na ngeen xam ne Thierno moom moo moo leen tudd ci làmmiñu boppam eh, ne kon nag yàlla nañu yàlla may fekkee waa déwén comme nii Ceerno nee na kon ñu ngi ñaaxaat nit ñi képp koo xam ne am nga njàpp jege sil ko amul woon njàpp na nga dem lu ju ñu ñëw imaam Moussa nag ñu daal di jox yàlla li mu moom mooy mu jiite ñu mu defal ñu naafila ñu bokk ànd ak moom ci shafa ak witr ñun ñëpp ñu daal di ànd bokk jàkkaarloog Mawlana tabaraka wa taala ñu ñaan yàlla mboolem yiw yi te am na ko moom yàlla di ko may xeetam gi yàlla nanti ci yàlla sédd ba mu doy mboolem balaa ak ay nattu ak ay jàngoro ak ay jafe-jafe yi nga xam dana da koy dàq yàlla nañ ko yàlla dàqal te mu soriñu ngir barke suñu maam ju baax ja mawlaana cheikh alxaaja umar al futi radiallahu taala anhu bi nga xam ne moom la ñaanoon mooy allahumma jacal bilaadana min xayri albilaad وجعل وجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اردد عنا زيغ وأهل الزيغ اللهم اردد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المؤمنين واهلك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 ya ñun bu ko defee nag ñun ñëpp yàlla nañu yàlla boole te jéggal ñu